soo ma bàyyiwul su ma génnee su ma waxee su ma ñëwaatee su ma waxee su ma génnee depuis trois ans yaa ngi ñuy menacé kañ ngay wax aji kañ ngay yuureeku maanaam wàccee ëmb bi wàcce daanoo ci gën a gaaw aji kañ ngay yolleeku ñu xam li ne ci ëmb bi lan la buy bu tojul du am njëriñ yow kañ ngay wax depuis trois ans yaa ngi menacé saa yu Ousmane waxee nga génn wax ne li ma xam dama la doon suturaal yow suturaaloo kenn sa bopp ngay suturaal yow aji xamoo dara yoroo dara dañ la utiliser dañ la use yow wéro yow psychologiquement mentalement et moralement yow yow tu n'es pas dans ta tête yow wéro té ko pan kilifa nga amoo benn éducation de base téléphone bu baax sax joxuñ la ko mënoo koo am sa téléphone bi nga doon selfie di def vidéo ko ko xol xamné téléphone bi appareil bi baaxul ñuy lekk ci sa kaw ay milliards waxuma ay millions de ay milliards ñi la wax diko ko lekk ci yow téléphone bu baax mënuñ la ko jox xawma 3 h du matin nga doon def vidéo bi yow yaa yey saaga bi yow boo saagawul looy def yow yaa yey saaga ndax li nga daj ku ko daj ba pare dégg li nga dégg saaga rek a ciy topp xam nga nag jigéen amul lu dul boppam jigéen amul lu dul yaramam jël ay million xëpp ko ci yaramam yaakaar ne bu paree sax jigéen ñu ëlbate ko ne ko yaa ngi mel ni dàndiñ yaa ngi mel ni buubu golo yow saaga rek nga mën a def rawatina nag nga paan kilifa te yow saaga woo Ousmane Kese yow xam nga ñi nga njëkk a saaga mooy ñu violé xale yu jigéen yi nga xam ni ay victime mu viol lañu ñii ñu ngi leen di dàmp pareeguñ ñii ñu nga tëdd hôpital ñii ñu ngay yéeg a wàcc amuñ ku leen layal yow ñooñu nga njëkk a saaga xam nga lu tax ñooñu nga njëkk saaga aji parce que dañ laa saaga nga xëy taal live xëy taal live wax ñaata réew ñoo nekk ci ki la doon violé viol ni mu métti ñii ñu takk seeni bët ñii ñu leen di dóor ñii ñu leen di gajj ñii ñu leen di nàccal lu ne ñu di ko daj yow nga xëy di compte ñaata réew ñoo nekk ci ki la doon violé kon yow boo saagawul lu la dese arme yi jeex nañu li nga xamoon jeex na amoo kilifa yow saaga rek Mamadou mu amee Ndiaye ñun xam nañ lépp ci dëkk bi la ñu dëkk fi la ñu juddoo fi la ñu màggee fi la ñu yaroo fi la ñu lépp fekk dañoo nekk ci Sénégal goo xam ne ku la abal bët fi ko neex ngay xool kii ñeex sa cere bu weer bi dee li mu bëgg ngay bëgg li mu bañ ngay bañ parce que gëmu leen seen bopp yow nag waroo woon a bokk ci ñooñu parce que xamee wuñ la woon loolu te njaay nga sant te njaayeen njaayeen yi dañ daan duñ des fois nag yéen ñi revue ngeen dajale seeni kaddu yu bon ba mu neex leen ngeen sotti ko ci kaw Ousmane parce que maison de presse ngeen di liggéey ak ànduñu Ousmane bëgguñu Ousmane Ousmane la ñuy bañ a gis xam nga looloo fi nekk mais nag mënoon ngaa ñàkk a tombé ci pièce boobu yow waroon ngaa mën a ñàkk ci jeu boobu doomu aadama dafay gëm boppam nit day gëm boppam bokkuñu conviction taxul boo may fay weer du tax ma yàq nit wala bu may wax ma wax dëgg te yàlla tax maison de presse site internet yi tele yu baree bari ku leen tëraloon Ousmane ñu rendi ko des fois ngeen yëkkati ay kàddu teg ko ci doomu jàmbur ji natt leen